waaw maa ngi ñëw maa ngi ñëw xaar combat bi jeex. Thank you. environ sotuwat asaɗa limana ko ala ɗiɗo sinamo ɗum ya jërëjëf Serigne Mbaye jërëjëf maanaam Sidi Cheikh Thiaga Diouf yàlla na ko di wér di nuyu woykat yi ñoom Come on. boo xoolee gaynde daaru dafa concentré wu trop gëddaat na waay waay puus nañ suñu kanam ñu seetaan mën a wax jox gaa yi information ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar ñu ngay lewaatoo attention sok jël na ko sok jël na tànk bi gaynde daaru rëpp na sok jàpp gaynde daaru door dugalaat na pergel dugalaat na Sokh xëj na ko génn daar wéyale na laa ilaaha illallah Sokh ko bëtt na ko kàttaapi na laa ilaaha illallah dafa mën a na ko jël bu rëy waa Gaynde Daaru mi bëre léegi ak Sokh daan ko mbër ñu ngi lay nuyu noo bëree. waaw maa ngi leen di fay luñ ma conseillé rek laa bëre taxawal nga xaar ko mu ñëw nga bëre moom man xam naa ne yàgg-yàgg dina ñëw bu ñëwee maako ko dàq bëre kii lu ma liggéey xëjut si moom kii amul doole dafa volume billaahi di sant sama askanu loobe kii sama nijaay la daa sonn si combat bi suuru combat bi dana ma jeex na waaye bul gëm ne jeex na billaahi di sant ñi ñëpp géwél séeréel loobe jaga ba doo xàmmee kenn billaahi di sant ñëpp di sant maaraayu ma jàppale di sant sama papa sama ñaari waajur lan moo tax nga xeex ba pare door a bëri loolu la combat bi laaj dama xam ne il faut que ma kaw ko maa ko dàq xeex billaahi dañ na ko góose lay xeexee moo tax ma xeex moom duraat man fépp laa man bu ma jël see dama ko doon dóor mu daana bu taxawoon tuuti billaahi bi mooy sa ñaata combat bi mooy trois combat trois victoire nekk sa kanam waaw man moom waaw maa ngi déglu rek maa ngi déglu rek. waaw Aja Mbër ñu ngi lay bége. oui maa ngi leen di fay jaajëf waay. Thank you. Balla Moussa foo demee Riyaw rek tuut ana Balla Moussa. diggante Safano ngeen jëm. Riyaw rek tuut Balla Moussa foo nekk. boo paree guy gi mooy tuut. Balla Moussa. Balla Moussa yow yaa war a tuut ana Balla Moussa. préparé wu leen après ñu doon dugg ci ñoom. waaye fi mu toll nii ki nga xamante ne mooy saafara dafa kenn doon dafa jàpp rek taxaw na ci dafa jël attention dafa am jàpp fi mu toll nii kenn doon mën a gëm. ay jàngal jooju jàpp na saafara jàpp na ko yaakaar ni mu ko yaakaar ni mu ko defee noonu.

arbitre arbitre arbitre voilà merci fii lan moo xew. di promoteur rek bëgg làmb lool nag di sant nag ñi ma tuddee ji muy Saal confiance ak Baskiam waaw maa leen di nuyu di leen siyaar ñoom ñëpp vraiment kontaan naa trop nag vraiment ci bis bi. waaw c'est la première fois ñu tuddee ma waaw waaw ndorte gi doon naa commencé tëggee làmb waaye <laughs> yàlla dogalu ko mujj jot gi moo amatul waaw waaye bëgg-bëgg moom mu ngi fi ba tey te on se quoi bés a ngi dikk ñu loxo encore incha allah. bi nga tuddee combat bi kontaan rek kontaan rek am yëg-yëg bu bu neex sax maanaam loolu yombul ndax nit ñi bëri nañ fii ñu mu choisir ma loolu ab cër la waaw di ko ci ñaanal nag yàlla defal ko taw fii ak Taysir. tey sa délégation ñan nga àndal. waaw maa ngi ànd ak soxna Ami Diop mooy sama première soxna mu ngi nii ànd ak Yamar Thiam sama xarit la. Yamar Thiam sama doomu ndey la ak soxna Aada. Ah, Aada Touré. ak Ndiaye Sylla ñoom it samay soxna lan samay soxna rakk lan ak Serigne Diop ak Diallo Diop moom mënumaa lim ak Saliou Gueye ku lim jub ak samay rakk yëpp vraiment taxawaay bi rafet na lool wax dëgg yàlla. kon Serigne bi tey léppay baax. non macha baax. te ku ma gis nag da ngay sant. waaw waaw. incha bëggoon naa fi wane sax ay mbir waaye du fi xaj. yàlla def nga doon tëgg làmb tëggatoo làmb léegi. nga nekk sëriñ di ñaan est yaa ngi ñaanal ay mbër. waaw maa ñaanal ay roi sax ay mbër yu mag sax macha allah. léegi dañu bëgg nga wax ñu sa xalaat ci Bombardier ak Balla Gaye en tant que sëriñ ñaankat lan nga ci gis. non boobu Balla Gaye Balla Gaye day daan ndax moom laa faral. dégguma. Balla Gaye day daan ndax moom laa faral. en tant que la wala en tant sëriñ. non en tant que supporter boobu nga gis ci boobu combat. non boobu moom dana bëri mystique moom waaye dana am bëre encore incha allah ndax ñoo yëpp préparé nañ ko. oui Modou Lo Ama Baldé loo gis. non boobu moom Modou Lo ok Ama Baldé daan. foo teg loolu. non sama sama teguma ko ci baatin maanaam sama sama kooku sama mbër. mais sëñ bi nag damaa bëgg nga ngay ngay ngay xaaju yenn saa yi. non xaaju bëgguma wax dëgg xam nga xaaju moom day indi la ca des comprendre nga ca loolu rafetul sa say nawle ndax it yaa fi moom jar nay sóoraale bu baax a baax. mais man moom laa faral moom laa bëgg mu daan. jaajëf jaajëf ma rax ma bëgg. maa ngi leen di jaarale. ak Serif ak Ada Fall pare émission Serif ñu gis ko waaj a ànd ak say mbokk say xarit say am si jàmm. nga dugg si ci làmb làmb ji lamb seetaan ku xeeb. waaw fa fa fa mu toll ci wàccaay yi. xam nga daas fanaan bi ñu wax dañ ci nekkoon lu bëri sóoraale wu ñu liggéey rek ne ci yàlla parce que li ñu def du développement communautaire soxla militant yàlla dimbali na ma émotionnel j'ai fait plus de trois fois ce amul région département sax laay wax Sénégal bi ma tegu sama tànk j'ai vu des expériences bëgg naa ko partager ak sama famille loolu rek mel Gagou Dione Gagou Dione ñaar wàcc na tey tànkam yéen wax ne nag di ñor ngeen di mu nekk mu daal di jógee di xale bu mën a bëree Touba Ndiarème bi mooy waaw Touba Ndiarème waaw moom laa jaawale nag de ñoo ñëwoon doo lool Lamine Lamine ana batterie bi ma la joxoon xam nga Lamine Lamine jox naa la léegi seetaan làmb sax ñu ne rek benn gos waaye loolu jox kaas la. waa ngeen di bëri maa ngi dégg na tubaab ah. oh Sélébé la loxoy dégg na tubaab macha allah. ah waaw waaw. waa jóge na fii sax awo. ñu ne waa Thion léegi ñaari bëri. waaw waaw. mel ne loxo yi neex na de. ay Salamele dooran na. ay cokkaas. loolu direct la destination direct la koy def. tout direct. waaw waaw ah nag bi répondre na. attention. hey attention. boppam. buñ jëlee sa loxo waaw. nag bi jàpp na nag jàpp na est-ce que Sélé Mélé jàpp na tamit. Sélé jàppul Sélé jàppul dafa langaamu. Sélé Mélé nag bi waaye si loolu waroon naa roob loxo yi mbal ko mu sikki mu ne ko taxawal yéen ko mu jaaxaan. ndax boo dee xool nag benn loxo la am kon su ko balee war naa sikki normalement pour nga taxawal. waaye tëgg leen loolu waay waaw waaw waaw waaw diggante Sénégal nag di lool ah mais nag di Sigire, bul sigire. Thank you.